bilan buñ demee ba tey ñu koy laaj bilan mu ne bilan nañ ko laaj suñu ay yaay ak suñu ay papa doy na saaga Pikine Nord nañ ngay ñëw gis ku ñu saaga muy tàcc ki koy saaga mais ñun ñi nga xamante ni mucc nañ ci bilan bi ñun ñuy toog dañ cee mucc suñuy yaay mucc ci suñuy papa mucc ñu mën leen layal ñun dinañ porte combat boobu combat bi nag ñu ciy woo bépp doomu Pikine Nord bu nga xamante ni jàpp na ni Amadou Dia daal li mu wax ni dañ ko laaj suñu yaay suñu papa saaga na sa yaay sa papa ndax mucc nañ ci ñu ngi la woo ci combat pour le que le 23 janvier au soir ñu taxaw ay bagages am mu ut feneen fu mu dem mais xajuñu Pikine Nord tamit ma dolli ci keroog ma dolli ci dañoo àndandoo ñun ñi ñëpp coalition bi ni mu toll dem di siyaare benn kilifa daanaka kilifa boobu mën naa ni li ñu war a campagne te mu campagne bi cinquante pour cent yi wax nañu ko keroog muy sëñ Modou Mbacke Abdoul Wudoon ñu koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan yàlla suñu borom mu yàggal ko fi lool ci suñu kanam bi ñu fa demee Mbàkke mu ne ñu daal li dal ñenn ñi ci Pikine Nord yéen dafa mel ni da ngeen cee mucc ñu ne ko Mbàkke muy lan mu ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa mës a toog di waxtaan ak saaba yi da leen di mu ne li ne ci ginnaaw bon saaba yëpp na tekk mu laaj leen ko xamuñu ko mu dama leen bëgg wax li ne ci ginnaaw bon mooy bon bon bi moo xam nga bon lu ñu dafa bon lu ne ci ginnaaw bon mooy lu yées yonent ba leen wax lu yées mu tàmbali ne leen jooyloo sa ñaari waajur boobu nag soññi la gaañu la leen góorgóorlu ci waajur bu baax a baax xam ne ñooy suñu njëriñ fii ñooy njëriñu alaxira donc loolu moom soññi la ñun ñëpp nañu góorgóorlu ci waajur bu baax ñu ko fi dese ñu ko fi dese lu ñu far dëkk leen ñaanal ndax wax dëgg yàlla loolu ngeen ameel bi mu paree ci boobu mu ne bokkaale suñu borom mooy ñaareel bi ñetteel bi nag sëriñ bi nee na bu ko yonent di wax dafa jug taxaw di dem saaba yi di xëcc ay yërëm mu ne seede lu dul dëgg lu dul dëgg seede lu dul dëgg moom la yónnee nee na ñetteel bi boobu la bi mu koy wax dafa jug taxaw di dem ñu xëcc mbubam ñun ñu nag dalul ndax ñun xam nañ ni Amadou jara def fi dara moo tax seede luñ ko di def na fi dara mooy bëgg nag waas ko lu Pikine Nord buñ ko rusee imam buñ ko rusee délégué de quartier buñ ko rusee benn dignitaire bu ko kenn rusee sa pap bu kenn rusee seen nijaay nañ leen ànd ci dëgg képp ku am naafiqu képp ku am naafiqu bëgg a seede amul jara bu la ci kenn ruus ndax Seydina Mohamed nee na looloo ne ci ginnaaw bon moo yées bon donc bu ko kenn jaral kenn nañ leen àndandoo xam ne dafa fi dara ñoo ko jox sunu mairie pendant sept ans moo bi laa catastrophique ay doomu Pikine Nord yi toog kenn ku ne ci ñoom waxuma man nii di wax dem mais kenn ku ne ki toog ci table bi ak ñu taxaw ci salle bi ñëpp kenn ku ne bu la joxoon maire bi nga def li gën ñu fi def kenn ku ne ñoom ñëpp bu ñu àndandoo war a boole suñuy doole songu Pikine Nord xajuñ ci te ambition bi ñu am mooy Pikine Nord ñu jël ko 5 ans bu ñu ko paree mu doon vitrine ñu commune yi nekk Sénégal lépp lu ñu def ci Sénégal ñu ko jàng Pikine Nord parce que mën naa ne bu weesoo loolu aussi ñu tekki woon raaye yi nga xamante ni mooy raaye yi ñu am. àndandoo ci ak yéen di liggéey ñu tekkin koo tekkin bu am solo raaye yi nekk ñetti couleur yi nga xamante ne nii mooy manaam bleu vert ak weex bleu bi nag gars yi ne moom mooy symbolise ndox kon yàlla nañu yàlla defal xéwal yu yàgg comme ndox ni mu doon xéwal ci àdduna bi ndox moomu nag mooy arrosé àll beeg gàncax yeeg lépp ba jur gàncax gu naat gi àdduna di dundee donc loolu lañ japp ni ndox momu solo soosu la moo aussi yalla bolé ñu xëñ ne ci couleur yi nga xamante ni ndox day bok ci symbole yi muy couleur ba ci top di couleur verte couleur verte di couleur bu am dafay symboliser islam bi ñu bok ak diine christianisme bi ñu bok donc ñaari diine yi nga xamante ni xëñu ñoko bok Sénégal couleur verte da fay symboliser ñaari diine yëpp ñun ñi fi daje ci salle bi xëñu kenn ci bokk ñu bokk nga ci bële

ndax election yi nag bi daa war a ndëgg fas bi xaw ma nag bu ko mbëkkee dee dee wala su dee dam mais nag bi daal fii ci Pikine Nord moom nag bi daa war a mbëkk fas ba mu jaxa waaw léegi nag ñun comme comme comme nag bee nekk ci ci couleur yi yaakaar nañu nag boobu aussi jàppale ne nag xewal kese la ndax bokk na ci mala bu nga mala yi nga xamante ni seen lépp njëriñ la ndax nag yaakaar naa ne meewam ñëpp xam nañu bari na ndawal gerte sakkan na. nak xam ni yéen yeeg jam bi dara doos ginnaaw donc sakkan googu fa sakkan lañu ñaan yàlla rek yàlla jappaluñ ci non nak mal ba mandal gal ñuko ci liñu def bu bisu wote xëñna mu mëna yaato lolu ba sakkan noonu waaw ñi ngi ñii wax nañ ni ñi wax nan ni xëñna euh valeur yooyu yëpp nak mom moy daje ci trip ñetti trip ci ñu wéte ni xëñna ci lañu wara communiquer ci campagne bi moy la priorité l'espérance ak la générosité piété bi mooy sell comme ni nga ko waxee sànq ànd bi dafa war a sell xol yi sell jikko yi sell doxin bi sell moom la ñaan yàlla te ci la ñu woo ñëpp ñu àndandoo pour fas yéene jëli Pikine defar ko beneen bi mooy comme ni ko sama grand waxee sànq mooy socialisme mais du ma dama wax yaakaar ndax dañoo ni doomu aadama même buy génn àdduna ak lu mu mën def ci àdduna dañ ko war a ñaanal mu deewale yaakaar ndax yàlla tas yaakaar yaakaar rek mu ne nga génn àdduna sukuraat yaakaar ni fi nga toll nii fa jëm ci alaxira àjjana ngeen yàlla suñu borom rek mën na laa moo ci loolu donc muy yaakaar ju sax dakk ju ñu ñaan yàlla mu am fi ndax xëy na yaakaar jooju aussi dina am lu ko sutnaan ndax nit du yaakaar fa dara newul waaye xëy na bu ñu tàmbalee ba wanee ni daraan fi wane ni mën nañ fi ñuy jëm xam nañ ko yaakaar nañ ko attan te ñu koy bokk na ci ñamante ni nii mooy ci ñetti triptyque yooyu beneen bi aussi mooy xëy na générosité générosité nag ñu koy wax dañ koy wax ci maanaam bokk bokku njëriñ dañoo ñaan yàlla yàlla boole ñu nii ñu egg ba commencé nañ ko sax ndax ñu bokk njëriñ ndax li ñu def ni wax dëgg yàlla jàpp naa ni bu ñu waxoon ni ko defee nga am ñoo bokk njëriñ ndax kenn ku ne ci grand yi fi toog nii di responsable def nga ci pour ñu mën a añe def pour ñu mën a daje def lii te kenn ku ne aussi xëy na ci li ñuy mébét di ci dem kenn ku ne yaa ngi xalaat loo ci war a def pour ñu mën a àndandoo pour dem jëriñ Pikine Nord pour jëriñ askanu Pikine Nord te noonu ñu ko doxee lañ bëgg àndandoo ak askan wi aussi bokk njëriñ ci lépp mooy lépp lu commune bi am ci njëriñ ñu fexe bokk ko waaye nag nañ ci préciser benn mooy li maire bi wax sànq nañ ko moytu buñ ci yegsee ndax maire yi aussi du defar kër maire yi du ko defar kër gaa am na social waaye maire yi ci li ñëpp bokk la war a intervenir mooy fexe njàng mucc ayib fexe paj mi mucc ayib fexe cadre de vie bu mucc ayib fexe ñoom am environnement bu nga am ku gis naw ñu je pense que yooyu dinañ ci gën a waxtaanaat pour nit ñi xam ne maire yi nga xamante ne mooy priorité yi nga xamante ne war a yooyu la du ñàkk nag social bi nga xamante ne xëñ na ku ku ku war a taxaw dina la taxaw war a gunge dina la gunge ku mu war a jàppale dina la jàppale mais daal jàpp ne maire yi buñ ñu ko joxee ko pour ñu lijjanti problème kër yi naam li ci mën dañ ko def mais li ci ëpp solo li ñëpp bokk a gis ni ci lañ war a gën a yëngu pour kenn ku ne mën a gis sa bopp ci maire bi loolu aussi moom la ñuy wax générosité boobu générosité nag ci ay xol la ci effort ci lépp parce que commencé na bu ñëwee ba ay ndaw mën na dajale seen àll ne dañuy samp candidat 24 sur 24 ñu ne ci dëkk di dox di campagne générosité la parce que effort nit ku généreux moo ko mën nit ku généreux moo mën nit ku généreux moo mën lu ñu bëgg après suba bu ñu yàlla dimbalee jox ñu maire ñu ko jot le 23 janvier au soir on a ko président Macky Sall nee ko le 23 janvier au soir boo wootee Pikine Nord jëlee na ñoom ma pende du mën a njaay ba semaine leen ca 3 heures waxuma laa 18 on donc merci.